soxal euh, jongante atum ñaari junni ñaar fukk ak ñeent lu mu dee dee dinañ am ñaaru jigéen ñu bokk ci élection yi ndaxte euh, jàll nañ euh, parrainage yi maanaam Anta Ngom ak Rose Wardini liggéey bu am solo ci ginnaaw moo waral lii lépp daal di fës ci kanam. ci fan yi ñu génn rek regroupé nañu candidat yëpp pour rek accompagner leen. dëgër la leen mais jox leen aussi ay jumtuwaay. jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo candidaté fi mu nekk nii ñoom ñoo ñëwoon. ni Mimi Touré Aïda am Amsatou Sow Sidibé ñoom ñaar ñii nag daanaka fës nañ ci langue politique fii ci senegal naam nag lu bari mooy faral di tënk jigéen ñi. 30 millions la ñu laaj. kóolute ñu war a jox jigéen ñi. kóolute boobu soo ko xoolee dafa tënku ci ñun sunuy aada. sunuy ngëm-ngëm ba léegi pour ñu giital jigéen dafay xaw a doy waar. ngir boole jigéen ñi ci làngu politique bi faw nag ñu daal di leen tàggat ci lu bari leneen lu ko ëpp solo moo di loi bi ñëw ci wàllum parité ñu daal di koy wàccook dafa am décision de justice yu bari yi nga xam ne cour d'appel jël na ko daan ñi nga xam ne respecté wu ñu la loi sur la parité ba léegi respect parité bi des na. ba léegi ñu ngi ñaax autorité yi ñu ngi ñaax population bi di ñaax parti politique yi. bu yëf yi di wéyee nii nag ñu bari euh, foog nañ ni euh, jigéen mën na jiite Sénégal gannaaw ba ñu tabee Aminata Touré mu nekkoon fii élimaanu jëwriñ yi ak Aminata Mbengue Ndiaye nekk njiitalu au conseil bu collectivité territoriale loole nag moo di bëgg-bëggu Roqiyatu Gassama.